mbokk yi maa ngi nuyu di leen ziar di leen xam-xam bu am solo bii di gaaral téere bu am boo xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké radiyallahu anhu taalifoon ko te boobaag léegi xaw na yàgg waaye am rek lu muy tekki ci muqaddima bi mu ci def mi noppi ñaar fukki fan ci Sha'ban 1400. tolloog le 5 juillet 1980 ci la nopp woon ci téere waaye dem nañ ba 1432 téere bi doon a génn ginnaaw bu wujjee boroomam di jëmmal rek ne ki jëf ki war a jëf na jëf waqul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduuna ila aalimil ghaybi wa shahaada kon dem bàyyi fii ku baax solo ci loolu dañuy ndokkeel baax suñu mbokk mi sëñ Ahmadou naa ne bi fi bàyyi bi bàyyi ko ay atam bëri waaye itteem ak pas-pasam taxaw ba liggéeyu bàyyi ko solo boobu nit ñi tekki seen bët di ko téere bi mi ngi tudd al muridiyatu al xaqiqatu wal waaqia wa afaqul mustaqbal yoonu murid wi sëriñ bi woote woon dëgg-dëggam lan jamono yi bind téere bi waaqi am réalité lan la ak lan lañ ci seen ëllëg ëllëgam lan la muy tomb bu am solo moom Cheikh Mouhamed taalif ko li tax ñu daje fi nag këru tasaare téere yi nga xam ne sëriñ Cheikh Fatma Mbacke mii ko jiite di daarul himma ñoo génnewaat téere bi ni mu ko waxee waaye muassasatu al azhar al islamiyya bi nga xam ne sëriñ Mourtala wax na ko léegi di sëriñ Mourtala ñu gisee. ci tool boobu la nekkoon di liggéey ku dem Thiès tey école bu mag ba fa nekk bokk ci école yi gën a ràññeeku ci Azhar liggéey na ko liggéey bu rëy rëy ay jeex itam ña ngi fa duutu farat moo tax daara ji gisoon ne téere bu am solo bi war nañoo def fii te ci taxaw génne ko moo tax 1442 euh, lañ ko génne woon 1432 euh, nga xam ne kon fanweeri ak ñaar ginnaaw bu mu ko taalifee ñu tegaat ci fukki at ak benn tey Serigne Cheikh Fall ma génnewaat ko waaye ñu tekki ko ci français yi boole ci muy lu am solo yi yoo xam ne njariñu téere bi woon ñëpp war nañ ci euh, nag ñetti téeméeri xët ak nangam la ñetti téeméeri xët yu tegal yoo xam nañ ko seetle ci euh, tënk boo xam ne ginnaaw njëlbeenu téere bi mën na jàpp ñeenti xaaj waaye ci njëlbeenu téere bi am na ay kàddu yoo xam ne ay kilifa yu jàng téere bi ñoo ci wax seen xalaat loola ci juróom-ñeenti xët la bokk na ca Cheikh Mamadou Bachir xalifu Cheikh Ibrahim sëñ basante ñam bi tedd jooju yooyu ñaan su boobu sàmm ko dëgëral ko wax na ci kàddu yu am solo ak rafiqu dara bi Cheikh Mourtada muy sëriñ Mamadou Mbacke sëriñ Baara mais nekk Tuubaa di jàngale wuutu sëriñ bi daara ja bokkoon def na ci ab taxawisam naka noonu docteur Cheikh al imam euh, Mouhamad bin Ahmad Miske di kilifa bu mag ca Mauritanie bokk ci taalibe Sëriñ Tuubaa yu yi naka noonu al imam Cheikh Mouhamad Gueye Parcelles Assainies moom it doonoon koo xam ne àndandoo Sëriñ Mourtala la nekk ci jataay bi ak ku ñëw alqaadi Abdullahi bin Ahmad yu ñëpp def nañ ci ay taqaaris yu am solo ginnaaw loolu am na taqdim boo xam ne bi ko muassas Al Azhar di moo lox bi defoon ñu ngi ci téere bi ñu ngi ko moolee woon Maroc ak mu muqaddim bi nga xam ne Serigne Mourtala moo ko defoon leeral ci lan moo tax mu doon taalif téere lan moo ko jóor ci taalif téere bi 1980 mbokk yi waaye jëf ju baax la jëf ju baax sunu borom neen du sànq inna allah la yudii'u ajral muhsinin kon ñu ba ñeent fukki ak nangam ginnaaw ba ñu daje fii ci mbirum téere boobu. te ba mu ko taalifee tegu ci lu mat fukki at bàyyi fi waaye bàyyi na fi lu baax bàyyi fi ñu baax ndax bàyyi na fi ay ndaw ñu jóge fu ñu war a jóge ñu jaarale fi ñu war a ñu taxaw ba seen yitte téere bi day ñëw bu ko defee rek téere bi da ko def ñeenti groupe man nañ ko dëkkee noonu ñeenti tomb yu mag tomb bu njëkk bi sëriñ bi la ciy waxtaan sëriñ mag bi nga xam ne moo fi indi yoonu mooy wax na ci mooy kan fan la jaay bàyyi ko wax ci ay melokaanam jaamu yàllaam gëm yàllaam wéetal yàllaam wakkiilu ci yàllaam jooyal mbiram ci yàlla waxtaane ci ñu doon liggéeyal yonent bi ci xeeti liggéey yëpp ci tagg ci julli jërëjëf ci bëgg ko ci ngëneel li nag ci loolu waxtaane ci xasaayid sëriñ bi xeeti xasida yi mu taalif ak mu àllafaat yëpp ak ni ñu séddalikoo ci ay mawduwaat yu wute wax na ci it li xasida yi ràññi ko daf ci lu am solo it loo xam ne gar na mooy nan la ñuy xàmmee lu sëriñ bind ak lu ñu ne sëriñ bi ko bind te wéeru joxe nañ ay xàmmee ko yom solo yoo xam ne bu ko sewoon lu la wanati neel li sëriñ bi ko bind nga day indi ay namas yu ñu ne sëriñ bee loolu leeral na ko ci bunt yi suñu taarix ci tawxiid ci lu ci bari lu ci nekk mu indi ci waxtaan na it boobu sëriñ bi ak colonialiste lu leen jotale lu taxoon ñu yóbbu ko ci natt bu metti boobu yoon natt bi wax na ni mu demee la ca doon xew ba ni mu bisiwaate am ndam ci seen kaw ak ba mu demee wuutal gi mu wutaloon Cheikh Ibrahima Fati lu waral wuutal gi ak lu mu ak lu ci Cheikh Ibrahima Fati taxawee loolu lépp leer na ko téere ci boobu waaye wax na ci sëriñ bi bay yi mu def ngir di ci waxtaanee xéewal bi ko yàlla defal dem jaar ci tukki bu benn boobu bi bunt boobu jeexee rek ci la ñëw ci xam ne murit gi mooy lan tàmbalee ko ci xam ne am murit ak yan melokaan la yam murit bu nekk saalik murit bu nekk waasil xeeti murit yi am waxtaan ci biir ay waajibaatam am murit dëgg lan moo ko wax ñëw ci tariixa ba ci boppam ay sam lan mooy laltaay lan mooy cëslaay yoon tudd na ca xam-xam tudd na ci jaamu yàlla tudd na ca jaayante tudd na ca liggéey tudd na ci ay teggin bu ci nekk mu faram-fàcce ko ci anam bu yaatu boo xam ne waxuma la murit waaye jullit bu ne war naa xam loolu ndax njariñ nekk moo ci nekk kon dañ mel ni bunt boobu mooy présenté yoonu murit mooy lan ak lan la wundu lan la wundu ci biir wax na ci sëriñ bi ni mu fonke tasawuf ak ni mu ko doon dunde am solo gi tasawuf am solo yooyu yëpp dëkk na ko ci kon muy bunt boo xam ne it mën nañu sut a xam murid bi dëgg-dëgg ginnaaw bu minan ak irwaa jàllee mën nañoo ne mooy ñetteelu wos ci delluwaay yi ñu dellu ci xam murid gi ci yoon wi ñetteelu bunt bi mooy mu wax ne tey murid jamono ñu ngi koy wax daa wane murid ni mu mel ni ko sëriñ bi waxee ni mu ko jàngale ñu mu xool nag waa xam bi nekkoon mu gis ne nekk wuute nañ ñu bari ci murit yi dañuy tudd ak murit waaye li sëñ bi wax daal di wane nu mu fësee dafa mel ne sëñ bi daan nekk ci aw xur ñoom ñoo ne ci beneen xur yi ma sañoon dama koy ku damay li may wax ni dama koy jàllale rek ci kàddu yi kocci ko sëriñ bi defee waaye nag comme téere bi dañ ko bind ci français dina baax ñi nga xam ne ñi dégguñu kalaamay kocc ñu baaxe leen ci liy njariñ te loolu war nañ koo lawal lawal bi mooy buñ jëm ci traduire ko ci français nañ ko traduire ci anglais parce que ci milieu académique yi léegi anglais mooy làkk bi ñuy gën di wax même suñ ko mënee traduire ci chinois nañ ko traduire ci chinois ndax ñeenti nit yooyu gis ñuy dox ci àddina kenn ki chinois kon ñu jot ci xam-xam bii am solo la waaw ci noonu nag kon ma jàll ci eh, làkku français euh, il y a un chercheur français qui a dit que les chercheurs de la confrérie sont tellement nombreux qu'ils peuvent constituer une confrérie de chercheurs leur père fondateur de cette confrérie-là des chercheurs, on peut dire que c'est Paul Marty, qui était un agent de l'administration coloniale française, qui a dirigé la direction des affaires politiques et particulièrement le bureau des affaires musulmanes. Ce bureau a constitué une somme de savoir exceptionnelle qui se trouve principalement au building administratif aux archives nationales du Sénégal. Cette bibliothèque coloniale, elle est énorme et elle est importante. Son importance tient au fait que c'est à partir de cette bibliothèque que cette confrérie de chercheurs, la majorité d'entre eux ont étudié le bruitisme. C'est en même temps le défaut de ces études puisqu'elles n'ont pas, elles n'ont pas pris en compte la parole morale. Ils ont utilisé des sources externes, et ceci jusqu'à récemment. Quand je dis jusqu'à récemment, je pense aux travaux de Cheikh Anta qui l'un des tout premiers est entré dans les sources internes. Je pense aux travaux de Cheikh Gueye, qui a écrit Touba, la capitale des Mourides en géographie. et qui prend en compte le savoir mouride. Je pense aussi à Diao Faye, qui a fait une thèse sur le Jazaou de Cheikh Moussaka. Là, nous avons des chercheurs qui ont utilisé les sources internes du mouridisme qu'ils ont combinées avec les sources externes. Les sources externes ont conduit les recherches penser le mouridisme euh, comme un phénomène qui ne s'occupe que des questions temporelles. Il en a résulté un certain nombre d'ouvrages au titre Les marabouts de l'arachide. On a pensé que le mouridisme, c'était juste la culture de l'arachide. Le marabout et le prince. On a pensé un moment, dans, quand vous allez dans les sources externes, on pense que Cheikh, il pense que Cheikh Amadou Bamba avait pour objectif de remplacer le damel ou de remplacer le thé. Donc c'était une vision exclusivement politiste. C'est parce qu'on n'a pas la parole de Et donc aujourd'hui, je voudrais vous encourager à lire le livre puisqu'on ne peut pas, quelle soit la synthèse qu'on fera, on ne vous donnera pas le cœur de l'ouvrage. Il faut lire ce livre. Et c'est très important. Puisque la Mouridia, quintessence, réalité et perspective d'avenir. Quintessence est le mot qui peut être énigmatique ici. C'est-à-dire c'est la partie la plus raffinée de la chose. Pour l'éclairer, je dirais que si vous prenez l'océan, c'est composé d'eau. Vous y trouvez toutes sortes de choses. des poissons, des pierres, des roches, mais c'est Mais si vous voulez saisir la quintessence, vous dites que c'est composé de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. C'est ça la quintessence de l'eau. C'est l'hydrogène et l'oxygène. Tout le reste n'est pas dans la quintessence de l'eau. Donc ici, on a la quintessence du ce qu'il a de plus raffiné dans la confrérie. Le reste n'est pas compliqué à comprendre. Et l'auteur il démontre que la mission du chef ne pouvait se réduire à ses dimensions temporelles, politiques et économiques pour en occulter la partie primordiale qui lui a permis de faire échec à toutes les tentatives d'éradication. C'est là une œuvre de salut public pour ceux qui sauront inscrire l'ouvrage dans le temps du monde sans en altérer l'essence. l'auteur nous introduit à la dimension spirituelle de la vie et de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Et il jette une vive lumière sur les fondements spirituels de la tariqa. L'auteur s'inscrit dans la suite de l'ouvrage de Cheikh Mohamedoul Bachir, Les dons de l'éternel. C'est là certainement que réside l'intérêt majeur de l'ouvrage, qui aborde des aspects qui sont souvent ignorés négligée ou minorée par la recherche sur la confrérie. C'est pourquoi la traduction de cet ouvrage en français va contribuer à renforcer la rupture épistémologique qui a été introduite en prenant en compte les sources internes en prenant en compte ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque mouride elle-même pour éclairer la mouridia. Cette dynamique qui s'est enclenchée par la traduction en langue française de sources internes de la confrérie devra se poursuivre. Ceci pour enlever tout prétexte tendant à dire je n'utilise pas les sources mourides parce que c'est écrit en arabe ou parce que c'est écrit en wolof. Donc il faut continuer cette œuvre-là. Et il est important de mettre en exergue la portée pédagogique et la rigueur de l'approche méthodologique de l'auteur. Dans l'ouvrage, les assertions portant sur un aspect de la vie de Cheikh Ahmoud Bamba ou de ses enseignements et illustrée par une citation qui renvoie à des références très précises qui sont solidement établies dans l'œuvre du fondateur de la confrérie. Et ici, il sera important, dans une prochaine édition que j'espère, de prendre toutes les citations et de trouver les références Il y a des, il y a des citations qui sont euh, référencées, mais il y en a qui ne le sont pas. Qu'on sache dans quel ouvrage du guide du chef Hamoud Bamba on a tiré les citations. C'est important de le mettre en notre débat, en de page. Euh, L'intérêt de cet ouvrage, c'est le contexte dans lequel il est aujourd'hui publié. La vie de la confrérie est aujourd'hui marquée par des initiatives remarquables de renouveau du projet éducatif et intellectuel scientifique du mouridisme. La construction de la grande bibliothèque de Touba sous le califat de Serigne Abdullah Mbake, l'implantation à l'échelle du pays des instituts Al-Azhar par Serigne Murtada, Murtada Mbake, la contribution immense des Daïra Isbu Tarkhia et de Raoud Rahin à la traduction et à la diffusion des textes mourides en sont des moments significatifs. le projet phare de l'actuel Khalif général, Serigne Mohamedou Bachir Mbaki, portant construction du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l'éducation et la formation, vient couronner la mise au temps du monde des meilleures traditions de l'école de Mbacké Kadior. Il ne fait pas de doute que toutes ces institutions contribueront à la traduction, à la diffusion des œuvres majeures de la bibliothèque mouride. Certainement aussi y contribuera le projet de musée Kerbarkelu euh, qui est prévu à Touba et le Khalif en a donné euh, les instructions à euh, Serigne Fanta Madi Mbacké avec qui nous travaillons. Cette école de Mbacké Kadior, elle n'est ni occidentale ni orientale. Elle est mouride, donc islamique. L'enjeu est de taille. outre les euh, services rendus aux chercheurs non arabophones, L'initiative de traduire perpétue la fidélité au message du chef. Pour se prémunir contre la perversion, la falsification, l'altération que facilitent largement aujourd'hui les, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, l'uniformisation des cultures, le réformisme religieux porté par la mondialisation contemporaine. Aucune communauté ne sera protégée contre ces tendances modernes en s'enfermant ou en se sanctuarisant. Le contexte contemporain appelle une réponse dynamique et ouverte aux opportunités, menaces, défis et agressions de toute nature que les mobilités mondialisées pose aux identités communautaires. C'est là que j'ai l'urgence et la nécessité de mettre à la disposition du grand public et des chercheurs les écrits du chef dans les grandes langues véhiculaires du monde. Les recherches qui, depuis des décennies, travaillent la trajectoire historique du mouridisme dans toutes les disciplines et en diverses langues en tireront un profit académique considérable. Je pense que cet ouvrage